jërëjëf xarit yi ak mbokku téléspectateur Zarak Vision ñu ngi leen di nuyu leen ziar bu baax a baax di am contentement ci saa su ne ci émission caf ko làmb émission caf ko làmb nag ñu ñëw tey seet si Ameth dem mi nga xam ne moo bëri démb ak Jackson yàlla dogal ñu bëri ñoom ñaar at bi jox victoire bi Jackson mais la fa xew defe naa ku ne xam na ko ñu ngi toog Ameth dem tey defe naa tey dina leeral ñëpp ñu toog ak waa Thiaré ñëpp ak ay xaritam ay doomu ndeyam tey waa Ameth dem ñu ngi lay nuyu. ah mais maa ngi lay fay vraiment di la ziar di la dalal fii si nga xam te ni fii mooy fii mooy daara ji waaw daara jaa ngi nii ak gars yi vraiment am nañu mbégte bu dalal leen fii vraiment content nan lol waaw mais mhm. dem tay ñu gis ne dañ la fekk nga relax trop tok lu war relax bi wa relax bi ñun ay sportif lan vraiment ta xam nañ ne sport mom fo kasse la comprendre nga fa la nak fo fo mo xamanteni ku ci daanu rek da ngay rouss mais téwul rek ñu jàpp ne affaire bi fo la comprendre nga loolu dañu relax te relax bi tamit li gëna waral moy bon lamb ji ku ne gis na nim mu mën na na wax ne ñaari siit moo am si làmb ji am na quatre appuis at bi nag ay nit lan waaw ay nit lan ay doomi aadama lan vraiment arbitre nit mooy juum yaa ngi dégg te nit mooy gis lu xam moo dul gis lu xamante ni yam nga. balaa ñoo ñëw ci loolu li ñuy doore mooy Ameth Deme préparation combat bi état de forme bi nga indi nga summeeku stade bi yëpp ne Ameth Deme dafa jël poids ci combat bi lu waral loolu combat bi nga ci. non combat bi dafa nekk combat bu ñu fonk rek respecté ko teg ko si yoon parce que boo xoolee man sentir ma benn pois wax dëgg fa yàlla benn pois sentir ma ko ñun ñi nag ñooy wax poids poids poids mais lépp boo xoolee miskil la boo xamante ni vraiment ñu liggéey ko si combat bi mais man sentir ma poids gars yi nag ñooy wax poids la xam nga gars yi moom boo ñàkkee rek lu ne la ñuy wax poids bee ka sonal wala poids nangam poids nangam dañ si liggéey doole bu baax a baax respecté combat bi waaw. xam dem sa sa départ ci làmb nekkoon koo xamante ni tey sa génération ñoom Ama Baldé ñoom Sa Thiès waroon nga dugg foofu ak loolu nga dem dem ba bëri xale bi nekkoon ci yoon ñu bëri ni risque la ci yow. non risque amul parce que dañuy faral naan xale bi daa nekk si yoon ñu ñëpp ñoo nekk si yoon ñun ñëpp si yoon la nekk di dem man na maa ne kon risque amul. dama bëri ak brutilisation yi moroom kenn nanguwul a jël kon du toog rek continuer te duma ma compétir comme il faut nag ma jël booy boo xamante ni am na tur ma jël ko compétir loolu kese la waaw damay compétir. mayoon na ay maye chance yooyu ñu di wax sa man loolu fekk man mayoo ma chance waaw man damay compétir waaw te fi mu ne nii bu ma amut bu ma amaatul sama morom sax dinaa xoolaat boobu ne si yoon booy bu am tur ma jël la bëre ak yow. jël ko moom léegi ñu dugg ci combat bi nga bëre moom démb bëre boo xam ne ab dafa suuf rek mu dox sa kaw bëre enchaînement sa réaction nga lance bi ne direct gauche mu jël si la lan waaw combat bi wax dëgg yàlla ni mu demee moom man neexu ma neexul amateur yi waroon naa gën a mën a neex xam nga waroon na noo mën a taxaw ñu bëre bëre xeex mais nag man peut-être ni ma ko jàppe woon moom jàppee ko noonu moom ñëw na rek arbitre bi sifflé yaa ngi dégg man lancé gauche mu daw jaar ci flanc bi comprendre nga après ñu daw rëpp bi mu rëppee nag teg na kat appui mu enchaîné action bi moo waral affaire bi gaaw mais même li ma jëloon décision mooy ñu taxaw xeex bëre bégal amateur yi ak yi defee quatre appels lu tax mën a woon taxaw signalé. non loolu dafa gaaw action bi dafa gaaw waaw bi mu tegee quatre appels dafa gaaw mais sentir naa ne sa rëpp na waaw sentir naa ne sa waay rëpp na mais teewul action bi si la nekk parce que dafa rëpp rek biñ jógee bi may jóg comme te moom ndaama la si la profito maman bi may jóg bay defaru rek si la ma rentré waat si la dóor sama fees bi mais sentir naa ne quatre appels am na foofu quoi. Hmm. quatre appels def ci biir combat bi yoo xam ne remarqué nga ko. comme li naan euh, fugg jeunesse comprendre ka réglé naa benn pas taxaw bi arbitre bi sifflé réglé naa benn pas laa di taxaw mais après moom it dafa def benn dafa marqué benn pas ñëw daan may jege si bi ma jege see nag man damay taxaw parce que ndew ma ko xamante ni xam nga daf may topp may réglé quoi après nag bi ma lancé gauche bi si la si la jaar si flanc bi mais man damay jàpp ne du erreur parce que ñu dañ naan erreur la non non du erreur parce que ñaari bërikat bu ñu dajee moom faa mu demee noonu quoi. waaw affaire bi dafa jeexe si bëre rek waaw. mais fan ngeen toll bi nga xamee ne def na carte appui sa staff sa président écrit ak seen waa écrit bi yëpp ban décision lañ jël. waa staff bi moom vraiment ñu nekk ñu jàmbaar quoi Baye Ndiaye Ndour ak staffam ñoom bi ñu jógee star rek si guddi gi automatiquement si si lan xool affaire yi saytu ko ñu xam ne sa waay def na carte appui si lan ut suñu kele def lépp enregistré lépp bi ñu xëyee nag yóbbu nañ ko CNG déposé nañ ko léegi comme te CNG moo fi nekkal sport bi nekkal fi mbëri te ñoom ñoo teg seen i règlement ñu ne lii sud la lii sud la quatre appuis sud la ah ñu dem déposer rek ba kar ñoom lu ñuy wax rek ñoo ngi leen di déglu fi mu ne nii. Mhm. mais fi lamb toll nga bëri ba pare soit même bu fekkee jox na la victoire est ce que neex na ban nga xalaat nga xalaat boo xamante ni CNG war na ko xalaat boo xam ne dañuy weesu mbër bëri ba pare di def recours ñu ko jox victoire ñu bëri na VAR mën am ci lamb ji ban xalaat nga ci am. waaw parce que boo xoolee lamb simple lamb simple yi boo bëreek nit léegi léegi nii si saase la ñuy sayto affaire bi bu fekkee si dafa am ñu jox la sa site bu fekkee amul na nga bëriwaat kon loolu war naa am si lamb dóor bi quoi ñuy leeral affaire yi si saase day jar sa si saase nga joxe li ngay joxe si saase def sa recours recours bi dafa war a nekk vaar quoi mu nekk lu gaaw si CNG bi la waroon a njëkkee vaar yi ñuy tudd nii si CNG bi la waroon a njëkkee quoi mais loolu war nañ ko mën a andi ñu teg ko parce que boo xoolee fan yi recours yi bëri na lamba yi jaxasoo bëri na. te warna no noo mën a dépasser eh, foofu quoi affaire warna di mën leer si saase eh. xam nga comme te lamb simple yi ñoo def pourquoi pas dóor bi war ka mën def xam nga parce que tamit amna dañuy yàq ay combat yu bari quoi amna lélen joxe victoire ta du victoire xam nga wala lélen nit daan duñ ko jox ba dañuy obligé daan ko lolou yeb gis nañ ko fi si semaine bi passé kon donc CNG warna na see jox ay matu quoi quoi euh tey recours bu su génné ñu jox la victoire fan lañ mëna xaar amé dem ay adversaire am ci kaw da ngay sens xali wala da ngay jël ñi xam ne ñooy say morom ci làmb waaw mooy li may faral di wax rek samay morom bu nangu jël ba tey ma tegaat ko si xale yi rek xale bu saf rek ma jël la xale bu pourfe nag mais nag nekkuma fii nag di may chance rek ma ñoon samay moroom dañ may jël ma comme ñëpp pourfe xam nga mais tamit gars yi tamit xaw ma nag lan moo tax ñuy teggi amee dem xaw ma mais war nañ maa mën a jël xam nga bëri naa fi ay morom yoo xamante ni ñoo ngi si arène bi di tegginte tegginte bi ak moytunte bi nag la lan war a ba te ñëw lu bëri moo gën ñuy toog rek toog bi amul benn sens ah mais bu ñëwul bu ñëwul ma xoolaat booy bu saf rek booy bu pourvé rek ma compétir quoi. say morom comme ñan da ngay lim ñaar ba ñett. non bëri na xam nga boo xoolee sama morom yi dama leen a lim ba mu jege affaire bi day mujjee xam nga rek te mbër boo a tudd turam rek da ngay perte boobu. xam nga moo ngi commencé aji di ngand ngand bu te loolu ko quoi waaw mais gars moom xam nañ samay morom ku def 18 combats 18 combats laa def 3 défaites kese laa si am 15 victoires loolu yombul si mbëri quoi waaw. ak cuune andiwuma ba foofu quoi kon donc gars yi na ñuy ñëw na ñuy ñëw nu bëre nu joxante loxo moo gën toog bi. bëri ay morom nag yu fi quoi te ñëpp xam nañ ñi nga xam te ni war na maa bëre ak ku ñëwul nag ah ma xoolaat booy bu prouvé rek waaw. Mhm. combat ak li nga am lu néew la ci làmb mais nekk fi di may sens si xale yi est-ce que du risque ci ak fi nga tollu ci làmb tamit. non non du ay may sens mais xam naa ne boo xoolee dernière année dernière année yu mujj yi nii bëri na ak cinq yu xamante ne ay xale lan ñëpp dama leena defal bagage xeyna na mo xawa xaw berek rek parce que man damay beulé ak assurance respecter sama adversaire ba yalla dima di may ndam yaa ngi comprendre mais buma soñon tamit damay dem beuri ji kom kaw comme sama morom gaay yi ñëw ma beure ak ñom ci kaw mais gaay yi kenn nangu la ñew hmm, da ngay obligé di ana balance wala ngay tok ay 2 ans do bëre loolu c'est pas normal xam nga loolu nak buma ma si naree fekk ma di jël boy rek compétir comme hmm kon daal jàpp nga ne yaa daan pour coupe bi génne jox la victoire mais fi ñuy li ñu lay waxaat moom mooy taxawaayu Khadim Ndiaye numéro 2 démb bàyyi ma joon isap yi ñoom ñoom ñu génn taxawu la sa relation ak ñoom lan la. waa xam nga 100 pour cent bi lañ wax léegi caaro yi mën nañoo wax ne benn écurie moo fi am léegi boole nañ écurie yëpp wax 100 pour cent caaro yi léegi ku am bés boo xoolee njëkkee nañ ko si combat Reug Reug bi ñëpp ñëw taxawu Reug Reug sama combat tamit mu ñëw ñu def noonu kon vraiment lii daal yàlla na jëm kanam di sant bu baax sunu grand yi. Khadim Ndiaye 1 Khadim Ndiaye 2 ah Ousmane Diop Issa Pouye Baye Mandione vraiment ni ñu taxawee demba daal loolu moom ah, sedd na xool quoi taman kontaan naa lool dañuy ñaan yàlla rek mu continuer li suñu kanam neex lii bu continuer rek roi dina fi ñëw ba pare supporters yi tamit gis nga ni mbër yi booloowee loolu moo neex supporters yi tax léegi kuy bëre ñëpp ay jóg caare yi ñëpp ay jóg boo xoolee démb ñëpp génn nañ xam nga dem dem jàppale ma xam nga supporter naa ñu yëngal stade bi loolu moom am na si solo bu baax am na mbégte bu baax a baax. dañ leen delluwaat tamit ci combat bi tuuti rek mooy dañoo gis ngeen def benn face à face mu ne la pied goos ngay teg yow nga ne ko xaw ma tànk booy teg mu mel ni moom daf laa liir mu yow liiroo ko. non wax la rek xam nga xam naa pied bi muy teg mais xam nga léeg-léeg nga xaw mbër nga koy xaw a nelawal. comprendre nga Jackson xam naa ko bu baax suivre naa ko comme ni ma suivre waaw seetaan naa ay combat yu bëree bëri waxee nu xamante ni doo ko jëfee comprendre nga loolu la fa demee rek mais xam naa Jackson bu baax a baax xam naa ne pied gauche lay jiital te xam naa ko te léeg mbër moom mooy loolu léeg nga waxee li Maxime Argan wax mbër day wor xam nga mais wor ji mooy wax waxe nii jëfe na neen loolu la quoi mais maa gënoon a xam bu baax a baax sax waaw mais nag sant rek dina baax incha allah man gëm naa ne incha allah lii ndog-ndog la rek boo xamante ni mënul woon a ñàkk démb. mu demee noonu mais incha allah gëm naa ne incha allah li sunu kanam non dina gën a baax bu soobee yàlla. li ñu tëjee mooy démb dañu laa gis sa préparation si Daniel Galaaj nga am lu nduroo ak rëg-rëg mooy sayu mbooloo nga yanu bi lan la da bokk fu ngeen ko jëlee wala moom moo la jox bagage yi. <laughs> rek moo ma jox bagage yi <laughs> moo ma jox bagage yi rek rek waaw xam nga rek làmb moom mooy loolu quoi bëri na mbër yoo xam te ni li ñuy def dañuy nduroo lay xam nga. mais xam nga rek gars yi ñoom ñooy dem xam nga man moom waaw gars yi ñooy dem andi yow nga def ñoom dañ naan laan defal rek waaw ñun dañuy def rek ñun moom li ñu res mooy entraînement waaw ut doole mais li des moom beneen wàll bi moom gars yee ko yore ñoom ñoom xam nga ay jinne lan waaw ay ñoom Bamako ak Habib ak gars yi ñoom ñoom vraiment ay jàmbaar lan sonn nañ si affaire yi lool amul fu duggul billahi waaw sonn nañ si maa ngi leen di masawu coono bu baax a baax gars yi nekkoon si affaire bi ñoom Cheikh Ndoye xam nga ñoom Assane Talibe Seex ak gars yi waaw vraiment sonn si torop waaw man moom vraiment aw ma seen fay waaw parce que ku gis ba xam ne waaj nañ bu baax sax wallaay waaj nañ bu baax xëy na nag yàlla ñëw ak ay liwam rek mais nag yàlla baax na quoi. waaw léegi ñu bàyyi la nga nga nga tëj lan ngay tëj. waaw xanaa di santaat ñëpp rek waa caara yi vraiment aw ma seen fay muy fan si club yeeg supporter yeeg xam nga am di jàmm yeeg man damaa wax ne ñëpp ñaanal amee dem. kon donc ma seen fay di gërëm nag sunu monsieur le maire waaw moom jàppa na si bu baax a baax a baax ak autorités yi na caare yépp atelier bii nag xam nga man na maa wax ne mooy ma sama lépp fii la quoi su ma jogee sama kër rek fii laay ñëw waa gaa yaa ngi nii nag xam nga waaw ñoom Doudou Ndoye man Mansour xam nga ñoom Idrissa sama gars yi limal ma tur yi jox ma turi gars yi ñoom Baye Fala ah. ay ñoom Doud Saw ay ñoom Mbaye Sarr Idrissa Papa ja ah ay ñoom Maguette <laughs> ay ñoom abu xam nga waaw ay ñoom Papa Ndo waa gis nga ñoom ñëpp vraiment ñu sonn si affaire bi nag def benn surprise bu ma bett wallahi lazim ñëw ba kër ga andil ma xaalis bu bëri kon donc ma aw ma sen fay ko yàlla mi am fay yàlla na leen yàlla fay vraiment seex moom jàmbaar la quoi moom it sonn na si lool di sant sama waa écurie nag du ma tudd tur mais écurie bi ah écurie bi rond vraiment ay ay ay jàmbaar lan waaw ay jàmbaar lan ndax son nan si taxawu nan ma waa voilà ay Doudou Ndoye ah Doudou kii mooy Doudou Ndoye <laughs> voilà léegi Cheikh. kon noonu la demee ñi ñëwoon fii Thiaré Géej seet si amee dem mi nga xam ne moo bëree eh, démb lamb ji amoon coow ci am na 4 appui amul 4 appui euh, ñu si woon ko nag tey moom nag li mu gëm mu jàpp ak ñi mu dëkkal ñëpp mooy def na booy bi def na kat appui Jackson dugal na recours am li ci des mooy déglu CNG rek eh, ñu joxe seen jógee na résultat yi ñu xool fu wànneen di mu jékki bëtam mu ngi noonu kon kooku mooy Ameth dem jër ngeen jëf kon ba beneen yoon.